jërë ngeen jëf mbokku auditeur u Afia FM yi comme niñ ko baaxoo def ñëwaat ak yéen seen rubrique ciné marina tey jii ñu continuer di waxtaanee li nga xam ne moo di jëm ci wàllu migration. ñu fàttali rek ne projet si ciné marina ñu ngi ko taxawal ci atum 2018 ak li nga xam ne moo di OIM ñi nga xam ne nag ñoo di ministre italien des affaires étrangères nag ñoo ko financé ci ndimbalu agence italien di wax rek ne projet bi li ko tax a jóg bokk na ci fexe ba migrants yi mën a jël décision yi bañ a dem nag di braver li nga xam ne moo di danger yi ak euh, bàyyi yenn comportement yi waaye it fexe ba fësal li nga xam ne moo di information bi ngeen ñu mën a am coppite ci wàllum décision yi nga xam ne jeunes yi ñu ngi koy jël di braver li nga xam ne moo di danger yi waaye it di fexe ba am engagement acteur locaux yi ak organisation locale yi euh, ngeen ñu mën a euh, dimbali ndaw ñi ci yi nga xam ne moo di dem bi nga xam ne ñu ngi koy faral di def di wax ne Sine naa nag ni ñi prone rek moo di migration euh, régulière tey jii nag ñu dalal euh, soxna ma jigéen kan di euh, facilitatrice Sine naa nekk également journaliste communicante nekk slameuse ma jigéen ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. ma jigéen tey jii bu ñu constaté actualité bi gis nañ ne am na jeunes yoo xam ne ñu ngi continuer di braver danger yi euh, lii di Barça Barsaq bi reprendre na ñu gis ne nag yaa a même eu des cas de ak ñoo xam ne tey suba constaté nañ ne euh, dañ leen yóbbu ci biir géej gi euh, di leen tëmbal foofu. tey ji yow boo déggee information bu ni mel ak malgré effort yi ngeen di def ban sentiment moo lay animé. damay am betteel. parce que à chaque fois dañuy euh, góorgóorlu ci taxaw ñi nga xamante ne ñoo di jeunes yi jëm leen a wan li nga xamante ne moo di réellement danger migration te teewul à chaque fois dina am ñenn ñi nga xamante ne peut-être ils n'ont pas eu l'information la ñuy wax donc ñooñ noonu à chaque fois dañuy euh, jëlaat li nga xamante ne moo di géej gi donc ay décès di leen ci fekk gis naa si ñoo xamante ni sax sa xol day tooy bu baax buñ la nee nit dafa gaañu ci biir bateau nañ ko jullee ci biir géej dañ ko sànni ay mbokkam dootuñu ko gis dootuñu am lu ñu denc comme loolu defe naa xolu yaay xolu mag ku nekk tooy na ko vraiment. mais euh, lan nga jàpp ne gis nañ ne peut-être illusion mooy yóbbu ndaw ñuy dem ak désespoir. Mm. mais depuis des années nit ñaa ngi sensibiliser di ñaax jeunes yi mais teewul. Euh, tey jii la waalo gën a aay lan nga jàpp ne moo des ci wàllum sensibilisation wala ba conscientisation jeunes yi ba mënuñu bàyyi li nga xam ne moo di euh, façon euh, demin bi. amaana déglu bi moo des parce que message tamit da ngay am sa message di ko délivrer mais ki nga xamante ne moo koy déglu na mu koy déggee ak yow ni nga koy waxee mën na bañ a nekk benn donc loolu noonu yow doo ci am pouvoir mais lan ngay mën à chaque fois ngay def li nga mën pour nga wax moom mu dégg loolu nga ci mën su ma xalaatee bu baax damay peut-être espoir ndax yaakaar moo fort. yaakaar dafa fort parfois dina métti ba nga yaakaar ne yow génn rek moo la ci mën a génne or que c'est toujours possible ici mais mun naa am yaakaar bu fort ak yaakaar ne Europe neex na parfois ñu leen di wan loo xamante ne nga am benn xarit mu tukki ñu lay wan loo xamante ne amul fii wala gisoo ko fii yow na nga yaakaar ne foofu boo demee rek tekki nga jeex na or que demeewul noonu boo demee foofu noonu am na ay jafe-jafe comme film amee jafe-jafe ndax fépp moo metti euh, donc lan nga jàpp ne mooy solution bi pour que jeunes yi mën a rester bu weesoo li nga ne moo di jàpp nañ ne il faut des projets yoo mais au delà de ça lan ngeen mën a def yéen mhm. pour que jeunes mën a rester au delà de sensibilisation au delà de sensibilisation bi je pense que ñu ci mooy accompagnement jeunes si seen i ay euh, projet ñu ngi leen siy jàppale bu baax jéem a xool naka lañ leen di tamit ba ñu am euh, formation parce que formation mooy base projet aussi mun nga am xaalis bi ci sa biir xel di ko xalaat bëgg teg projet mais tant que amoo formation boo xamante dina la def yow en a teg ay jéego du sotti donc à chaque fois dañuy jéem def ay euh, formation di leen ko may comme en audiovisuel wala genre yooyu nga xam ne loo xam ne boo ko joxee nit après dootoo topp ci ginnaawam parce que dina mën a demal boppam mu liggéeyal boppam donc loolu noonu ñu ngi ci également bu ñu jógee ci xale yi ñu ngi ci maire yi parce que souvent yaay dañuy pousser seen doom pour que ñu dem parce que dañuy gis sa benn cousin diw dem na wala affaire yu noonu ñu ne tout le temps foofu neex na boo demee dinga nga mën def léeg-léeg lii yaay bi teggi na tam di ko jox doomam wala yaay bi dajale def lépp jaay collier am jaay leneen leneen dajale ko jox ko doom donc sensibilisation je pense que bu jàppul ci xale bi moom bu jàppee ci moom rek mel na ne euh, jot nañ xale bi donc ñu ngi essayé lool je pense qu'on l'a fait avec la campagne Aware Migrants 2018 2019 mars 2019 je pense si je me trompe pas donc on l'avait fait avec des mamans lébu ñu ngi dëkk Wakaam defoon nañ ko foofu noonu waxtaan ak yaay et à la fin on a vu que ñoom gisee ko peut-être nuñ ko gisee woon et y a eu un changement notable vraiment. mais est-ce que waxtaan yi ngeen def yëpp am na impact soo leen teyee déggaat yenn résultat bi finalement fi mu mujj. peut-être euh, li ñu bëgg comme résultat amaguñ ko mais ba tey. impact moom am na peut-être eggul niveau bi nga xamante ne ñun bëgg nañ mu àgg foofu noonu e liggéey bi jeexagul day door a commencer mais euh, boo gisee tamit ñu nekk foofu jékki-jékki contacter OIM pour mën a ñibbisiwaat ñëw fii teg ay projet ñëw fii liggéey seen réew je pense que donc am na tuuti impact bi ne am na ci mais des na ci gox-goxaan yeeg ci zone yi gën a reculé yi pour que nit ñi xam ne jaay sa bakkan hypothéquer ko pour alal loolu fajul dara parce que boo demee tamit nga des yoon bi tamit sa famille mooy gën a ñàkk day ñàkk ñaar yoon euh, des nañu dugg ci biir région yeeg yooyu noonu mais ba ba tey yaakaar naa ne am na tuuti impact bien que liggéey bi day door a door te amaguñu lu ñu bëgg bu baax a baax. Euh, tey ji yow journaliste nga. slameuse loo ñu mën a raconter loo xam ne peut-être marqué na la ci sa parcours si situation migrant yi. Euh, toujours de revenir ci première fois bi ma demee réunion euh, avec les migrants de retour de témoins vivants ce jour-là je souviens j'ai j'ai pleuré j'ai pleuré que. dama gis loo xamante ne man yaakaaruma woon nit am na xolu su ma koy wax sax sama xol day tooy parce que yaakaaruma nit am na xolu di def loolu noonu nit mu nekkoon ci circonstance su Libye temps bi muy nekk en en pleine crise nit ñi di fa di fa bëgg a jaar pour dem nga gis ñoo xamante dañ lay won ay séquelles ñi naan fii nañ ma doon jam paaka fii mm. fii nañ nga gis ko ci seen yaram yi gis ko ci seen i bët mu leer na ne kii nii dootul nekkati nit ki mu doonoon ba à jamais moom dem na rek mais ba muy ñëwaat xottu nit la àndaal nekkatul ki mu doonoon également nga gis ay jigéen ñu ne lañ maa violé ci yoon bi mm. c'est dur ci gaal laa nekkoon dama yëgoon ci gaal ñu violé ma dañ ma doon paasante diñ lay raconter ay histoire yoo xamante ne léegi boo xoolee borom yow tu tu sais moom bu doon à fair dootul dem mais yi xew xew na ma pare et dootul nekk ci mukk ki mu doonoon donc je pense que ñaari affaire yooyu nekk na lu ma lu ma marqué. vraiment donc au delà dem risque leur vie dafa am ñoo xam dañuy subir ay violences physiques. bu baax bu baax bu baax parce que boo nekkee benn jigéen nekk ci bateau parfois nga gis ñoo xamante bi ñuy dem tàggoowuñu. Mm. dañoo dugg ci bi bateau bi seen benn xarit moo leen dugal wala genre demee noonu. nga bara def ci yoon bi 7 jours 8 jours tu accompagné que de garçons c'est un milieu un peu misogyne donc euh, après lu nekk mën na la daal ci diggante bi da nga gis ku la ne dañ ma violé la ne dañoo woon que dugalaat ma ci bi ñu sànni ma ci biir ndox parce que ma doon diisal gaal bi parce que fayu ma wala effet yu bëri nga gis ku naa la man ci biir bateau bi laa amee doom donc euh, tu vois ces circonstances c'est c'est vraiment douloureux c'est pénible affreux defe naa ne loolu aussi c'est des témoignages yoo xam ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu ñu jël risque quand mhm. euh, di voyager euh, mais au-delà de li nga xam ne raconté nañ la ko mu choqué la est-ce que euh, am na loo xam ne mën nga ko nettali ci yow slameuse il vous arrive ngeen def ay poème wala ngeen di def ay slam yoo xam ne mhm. ça pourra peut-être aider les jeunes à capter le message bi ngeen bëgg a c'est c'est vrai que ci loolu noonu inspiré wu woon nañ ci ba jot a bind ay texte boo xamante ne c'est une succession d'histoire ku ci nekk ak partie bi nga xamante ne moo la gën a touché tey ji nga nga bind ci bokkoon na ci tam yi ma bindoon yaakaar mais bokkoon na aussi ci tam yi ma bindoon témoin vivant koo xamante ne moom moo fekkee moom moo dund mu nettali nga dégg donc euh, je peux euh, Bien slammer sûr. le texte mm -hmm. avec un, grand plaisir dans le désert de la Tripoli et puis en Mauritanie j'ai été meurtri des ossements vêtus de séquelles de tous ces tabous et ces non-dits dans le désert creux ces victimes de massacres sans l'odeur de la mort et de tous ces cadavres j'entends leurs cris naissant et mourant emporté par le vent. Seul, seul loin des amis et des parents, je les entends. Je les vois entassés dans des cachots, seuls à souffrir sur la route de l'Eldorado. J'entends ces âmes peinées, morts à la quête d'un avenir meilleur. Tous ces hommes perdus dans la croyance d'une possibilité ailleurs, ailleurs où on loue le ciel d'offrandes et de prières. pendant que leurs os se délabrent entre vent, chaleur et humidité. J'entends ces âmes pénies, victimes d'atrocités, de la plus grande défaite de l'humanité, dans le désert de la Tripoli. Et puis, en Mauritanie, j'ai été meurtri. J'ai vu la mort en face, le genre de souvenir que même l'océan efface. Sur la pirogue, l'eau se mélange à nos larmes, la peur nous désarme le temps s'acharne à dissoudre nos rêves. Entassé dans l'écorce, j'ai vu l'espoir s'envoler en braise. La réalité nous rattrape à pas d'or. Plus que la fin, je ne verrai plus les miens et ce trésor humain que j'ai lésé pour tes biens. Dans cet alizé de violence, j'ai perdu mon innocence. Dans cet alizé de violence, J'ai perdu tous mes Très beau texte ma jigéen euh, defe naa ne lii euh, jeunes yu bëri buñ ko déggee war nañ si gën a bàyyi xel parce que am na message yoo xam ne délivrer nañ ko ci mais surtout drame bi nga xam ne moo nekk ci li nga xam ne moo di immigration euh, irrégulière yi waxtu bi daanaka dab nañu dañ lay mhm. bàyyi rek nga joxewaat message boo xam ne peut-être ça Euh, capter jeunes yi le fait que ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne moo di euh, musiba bi ñuy dund te xam ne euh, c'est am nay conséquences yi moo ëpp li nga xam ne moo di liñ ci jëlee lu baax. donc damay wax tout le temps nañu yërëm suñu xolu yaay yi parce que yaay amul dul doomam. trésor weesuwul nga am sa doom gis ko bu mag même bu fekkee ne il n'est pas riche il n'est pas plein aux as moom ci boppam en tant que tel moom trésor la donc euh, ñuy yërëm suñu yaay yi bu ñu naree jël yoon bi dem parce que parfois da ngay gis ku naan damay dem pour tere sama yaay mais yërëmul yaayam ndaxte bu ko wóoree ne yaayam bu toogee une semaine gisul doom déggul doom day dof même su ko waxul ci kaw à l'intérieur xolam mu ngi tooy chaque jour donc loolu rek non seulement mën na la rey yow mais mën na reyaale say parents ñu sóoraale bu baax que ni mën na nekk fii nii ñun en tant qu'Africains on a l'histoire on a les ressources on a la jeunesse on a tout pour y arriver donc lu des mooy jàppalante lu des mooy gëm bi donc euh, j'ai envie de passer à chaque fois un, message au monde à l'humanité j'ai envie de passer un message à la jeunesse que ni mën na nekk c'est possible mm-hmm. que bu ñu envoyer ñun suñu bopp entre nous des ondes positives fii nii lépp mën na fi nekk parce que lépp mu ngi fi. donc ñu bàyyi ci xel bu baax euh, message bi ngay lancé aux autorités également parce que nag euh, defe naa ne parfois day baax ñu am politique de jeunesse boo xam ne dinañ éviter yenn drame yi euh, surtout fekkee ne état joué na am surtout ci wàllu jeunesse bi. damay faral di wax ne Sénégal ngay gis koñu lëm boo xam ne amul sax terrain bu xale di fooyee. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne c'est bien pour loisir mais c'est bien pour que xale bi mën a épanouir pour que mu mën a ubbeeku mentalement mu mën a mu am ouverture donc politique jeunesse Sénégal dañ ko manqué bu baax a baax a baax accompagnement jeunesse création d'emploi yooyu yëpp bëri na yu ñu ciy dikk bëri na ay programme mais bu ci benn réalisé woon je pense que jeunesse bi dootu ñu dem manque d'emploi bokk na ci li gën a poussé jeune parce que mënoo am benn 25 ans jëm 30 ans tu yaa ngi am ay rêve dara sotteegul et tout c'est dur parfois di nga di nga xam ne loolu mooy pousser nit ki mu dem donc suñu jàppale woon ci création d'emploi fexe ba mu am cadre boo xamante ne dina permettre jeune bi nga xamante ne mu ngi ci biir koñam te amul benn qualification même bu amee 30 ans sax mën a ñëw def formation ne serait-ce bu fekkee benn contribution bu ndaw lay joxe même bu nekkul gratuitement mu nekk loo xamante ne dina permettre nit ki mu am qualification parce que la plupart du temps ñiy gën di faral di dem mooy ñi nga xamante ne amuñu qualification qu'on le da ngay dem doo yóbbaale benn qualification même soo àggee tu as des problèmes pour trouver un emploi parce que amoo benn qualification donc euh, ñu jàppale je pense que ce serait bien on fait un appel à à toutes les autorités compétentes ñu jàppale ñu ci loolu noonu bu baax a baax. ba jigéen ñu ngi lay remercier. maa ngi leen delloo remerciement bi parce que c'est un plaisir à chaque fois de partager sur la migration et de porter ma voix pour euh, cette cause qui est carrément noble. di fàttali ne euh, mu jigéen euh, kan facilitatrice ci les marina la nekk également journaliste communicante mm-hmm. ak slameuse di ko jaajëfal ci disponibilité bi di jaajëfal soxna maam Koumba Diagne Touré ci wàllu technique bi Fatou Ndiaye nekkoon ci kàddu gi di leen dig dajee ci beneen numéro ak beneen invité jaa ngeen